yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. sakartuhu salafan qabla an yulqi alxitaaba xam na xam naa la la ciy juddoo ci waxtaan bi ba santoon naa ko njëkk muy muy muy muy jàng discours bi loolu ak xama koy war ak xama koy waral. Eh, ndax suñu bilaat dalaa wax naan nit moom boo ko xasee xam mook faati jëw mokk la yam buñ la ci bëggee dolli sàdd da xam ne bokk ci woon buñ la ci bëggee wàññee wàññi sàdd da xam ne sàdd gii kat yaa ko wàññi waaye ci la boo koy def <laughs> kon nag maa ngi leen di nuyu di nuyu ñëpp ci bis bii nga xam ne dañ fee ñëw da ngeen fee ñëw ñu fiy def waxtaan wi waxtaan wi jëm ci sëriñ bi loolu di bànneex ci man bu baax a baax a baax a baax ndax fu ñuy waxtaanee sëriñ bi rek ak yokkute la ndax dana la diir bi ñu koy waxtaanee ak diir bi nga koy déglu dana la yóbbu ci yàlla lool amul leneen loo mën a def ci boore murit lu la mën a yóbbu foofa ci ci leneen lu mën a yóbbu fa la lii di yóbbu ndax dana la delloo ci yàlla dana tax nga xa nga nga gën bàyyi xel yàlla dana taxit nga gën a yéem sëñ bi te moom it noonu la jëmmam meloon mag mosuma dégg sëñ bi bu neen am na mag mag moo xam ne da doon wax ak Boona Njaay ñoom ñaar ñëpp ñu wax loolu ne ah sëñ bi murid yi ñu ngi koy ñu ngi koy tuddee tur wu ne waaye xam naa li ma xam daal mooy ku gis sëñ bi saxal dem ci yàlla lu doon nag laa xamut ko gis kooko gis kooko gis saxel dem ci yàlla de <laughs> loolu nag kon taq na taq na ca taq na ci yàlla bu baax a baax a baax ndax yàlla la doon xëy ci la doon gond ci la doon jànq ci la moom la jox dundam bépp tax na nag ku mu ku ko mas gis rek saxel dem ci yàlla ba tey nag bu ñuy waxtaan ak moom bu ñuy waxtaan ci moom it noonu la lay def noonu la lay def mm-hmm. kon li mag ñi daa wax nañ ci gën a ngoy rek am na mag ñoo xam ne ca mag ba fi mag ñi ne dañ daa wax naan ku bëgg garab gu sedd gu dëll goo xam ne ñi doo fa jóge di wuti ndox doo fa di wuti ñam ronal sëñ bi rek <laughs> boo fa riigoor yi <laughs> lépp dana la fekk te doo fa eh, eh, eh, naaj la jàpp te doo mar doo xiif kon nag eh, mag ñi yeet yeete woon nañ mag ñi waxoon loola wax nañ dëgg waaw wax nañ dëgg kon yàlla na ci yàlla gën a dimbale jaari ndeyri ñu far toog toog ci ndeyri rek mañ mañu faa jóg kon nag yàlla na ci yàlla Sëñ Tuubaa gën a dimbale rek bu nag ngeen xam ne eh, li am li ko eh, Cheikh Mamadou Fadil waxee woon rek nit de du am lu ko jàmm la suñ fàllu waxoon waaye nag waaye ndax ndax bu ko jomboon da ko am waaye dana am lum mu xamul nee na kii ñoom buñ jomboon duñ ko am waaye nag xamuñ ko am nañ lu ñu xamut muy sëñ bi noonu la ko sëñ fàllu waxee kon nag yàlla nañ ko gën a xam yàlla nañ ko gën a topp yàlla nañ ko gën a déggal bu ko dee nag ngeen xam ne bi weer wi ñu ne weer la mu fonkoon weer la woo xam ne bu ko loon la weer la woo xam ne bi mu laataa dem ci géej gi ñëpp xam na ni ko fonke woon bi mu demee ci géej gi ci la def xasida yi nga xam ne sax ci la koy teeroo ko ak di ko ci gunge te booba mi ngi fam fam ne gisul sax kuy wor waaye ci la de ci la ci la def xasidaam yooyu di nga xam ne da ci teeru weer wi ak di ko ci gunge mu ñor ko lool mu defal ko ab diiwaan sax boo xam ne lépp du ko tënki weeru koor dadaa waxit fu mu toll naan sahru ramadan sirri rabihul awal liya weeru koor mooy sama mbóot gàmm moom moom moom moom eh, damaa man donc oh. <laughs> maanaam sama yëfi bopp waaw maa ko moom sama yëfi bopp dal maanaam daal maanaam nit lu fonk dëgg na na na ñaari yooyu la sëñ bu gën a fonk ci lépp muy koor muy gàmm kon nag bu jotee ñu defe ko fii ci Touba war nañoo sant yàlla fase ko ci kanamam war nañoo sant yàlla jeexari kaamil bi ci kanamam war nañoo sant yàlla julli fi génn julli képp ci weeru koor ci ci ci dëkkam bii rek ngëneel la ndax ni ko sëñ Abdou Khadir daa rek lu sakkan la wut te nee na ginnaaw sëñ Mourou Sow ne ko jaame nettali na ko ne ko sëñ bi nee na sama turandoo nettali na ko sëñ sëñ bi nee na def lu baax baaxe na fu ne waaye sakkanee tuwa Tuubaa te sëñ Abdou Khadre lu sakkan nag la ñuy wut ñun moo tax moom mu fonkoon daw nangoo woore benn bis bu dee kor ngàtt gi sax du ko nangoo woore bu ne ko fekkoon baax daal dina ñëw Tuubaa waaw kon noonu la ko fonke woon ci ci doon ko dundale Tuubaa kon nag bu ñu yàlla tawféexale tawféex ji war nañoo sant yàlla ndax mboolem lu am njariñ yàlla wan na ko sëñ bi mboolem lu lu amal njariñ mm-hmm. yàlla na ko sëñ <laughs> te nag bi mu ko ko wanee it dimbale nañu ba ba ba wanee na ko nuñ ci mën a jariñoo wàcc wan nañ wàcce wàcce na ko ba mu suñ suñu dégg mu wane nu ko noo xam ne buñ ci jaaree mën caa jariño waaw waaw loolu kon nag wàcce naa ñun kon li war a def mooy gën a góor góorgóorlu gën a yokk suñu taalib yokk suñu itte ngeen xam ne weeru koor wii lu ñor sëñ bila loo xam ne eh, dadaa def bu agsee mboolem mag ñi nga xamoon ne xamoon nga leen ñu ay kàngam ci yoon wi ñëpp dañuy fas si koor ca ca moom njëriñ ñépp ñëpp. Mhm. ñëpp dañ daa ñëw njaareem te ku ne berndeb sëñ bi dana agsi ci yow ak yëgam dana agsi ci yow moo tax ak yëgam eh, jikkoom rek mën naa yor adduna waaw <laughs> boo gisee eh, ñëpp topp ko bokkam yëpp topp ko taalibi yëpp topp ko jikko jikko yàlla defal mhm. la yem kenn waaw ni ko sëñ bi daal daa ku ne ku ne ku jikkoom la la yore koo mën a doon rek boo ñëwee jikkoy boppam la lay yore moo tax mën a ànd ak ñëpp <laughs> te danaa la wan ci boppam wan la sa diggante sa digganteeg moom lu tax bëggoo di sa morom <laughs> loolu nag euh, jikko ju ju rafet ji mu yor ak fi ko yàlla yóbbu ci makaarimul axlaax loolu moo ko may loolu moo ko moy lépp mën a dajee ci loxoom kajoor ak bawal ak jolof fonk ñëpp ñëpp ci loxoom loolu ko may bu ko dee na ngeen xam ne eh, yàlla dañu koo dimbalee li lii tax ñu mën cee jariñu nag mooy na mag ña doon def rek ñu def ko ci moom muy sopp ak wóolu ak topp waaw <laughs> yett yooyu rek buñ ci saxee lépp luñ bëgg luñ bëgg a jariñu ci moom danañ ko ci jariñu te nag loo xam ne si ku sax ci jaayukaay bi nim ko daa waxe ku sax ci jaayukaay bi eh, te te te te xooxle xooxle ci ne faw ngaam am xooxle mooy lëjle xooxle ci ne faaw nga am danañ mujj fekk la ca teretang bi dana mujji ne la indi li nga am ma jaay la wala yàlla jox la njëg gi <laughs> loolu suñ beeku jàngale woon ci <laughs> waaw taxoox la ci njëg gi boobu mag mi da ko wax ne ko da da damay damay teretang wër wër wër man a boppam la koy wax ba te naa li nga xam ne bu ma ko amee am naa lépp bu ma ko ñàkkee uma dara muy muy muy mi mm-hmm. te nag xaw na may def am ko ndax uma njëg gi sëñ ne ko waxaatal li nga waxoon mu waxaat ko mu ne ko xooxleel ci sàkku gi rek <laughs> boo ci xooxlee danañ mujj borom jaaykat bi dana leen andi andi andi andi li nga am ma faral ko jaay wala yàlla jox la njëg gi ah, yaar yëpp yëpp baax kon nag loolu ab bind wax ñun ñëpp nañ cee jariñ ah, ci yàlla dimbale bu ko dee nag ngeen xam ne moom lépp lu baax moo ñu wan nañ ko wan a jariñoo lu ne ba njàngum alxuraan rek moo ñu wan niñ ko war a jànge ndax dañoo wan nañu loolu sëñ Abdoulaye laa ko toxale nee na sëñ nee na wa ne laa yamassu boo jubee alxuraan di jàng alxuraan dalaan la laa yamassuhu illal mutahharuun nga daal di mu jàppi ñëw ne laa yamassuhu illal mutahharuun nga ne ah war a am cangaayul cangaay te defuma nga dem sangu jowaat delsi jub ko mu ne laay ma soo ilal mu tàngal nga daal kon kon xam naa ne sama xol laabul nga dem tuubi ndax taxaaratul xal bi moo am wa taxaaratul gis bi te taxaaratul xal bi tuuba koy maye ba nga delsi nga dem tuubal yàlla nee na bi nga delsi waatee nag alxuraan daal di ubbil boppam. Oh. seen ku jaarut foofu nee na nee na boo jàngee mbët mi du ñëw. wa bi nga del siwaatee nag nee na mu ne la faqra o ma tayassara minhu na bu waa loo jàng rek mbët mi ñëw <laughs> <laughs> <laughs> nag yàlla nu yàlla dimbale loolu na bind jël leen loolu tey dégg nga ah, loolu doy ah, suñ tubaa ko waxoon kon nag yàlla nu yàlla dimbale bu ko ngeen xam ne rek nañ gën a góorgóorlu gën a ngoy ci sëñ bi gën a ci suñ diine gën a xam ne lii ñu am ak kii ñu am lépp jawful faraa boobu muy wax mu nga xam ne lépp moom da ko daa wax naan ci nga ne bi ko daanee ci laa am muñ muñ rek la ci laa ko ak tabe ak lewet ci laa ko daaneele ba mu ko daaneele kon lépp lépp lépp mi ngi ci loxoom waaye ñu nit ak topp ak ak ak eh, ak topp nu ma ko waxee woon ak wóolu ñett yooy nga ci mën a ja ñett yooyu nga mën a jaar ba ba ba ba mën a jariñu ci jawful fara boobu nga xam ne am na ko <laughs> kon nag yàlla na ci yàlla dimbale bu ko nag ngeen xam ne koor it xëdd sëñ Tuubaa ko ci digale nañ ko fonk bu baax te saxaroo fay na fi suhoori barakatan tax mi xam ne madhoori maanaam na ngeen di fonk koor bu baax bu accès na ngeen di xëdd ndax xëdd xëdd mooy dàq iblis moo tax ñun bi ñu nekk seen xarit suñ dañu daa aaye dañu daa aaye bañ xëdd <laughs> ni mu fanke woon sunna waaw waaw bu xëddee dañu dañuy dañuy fëgg sax dañuy fëgg jox ñu ndax ndax bañ ñu bañ xëdd noonu la fanke woon xëdd bu ko dee yéen ngeen xam ne koor it koy def ku ne war ngaa xam ne euh, euh, war ngaa xam ne Euh, boo ci duggee bi nga kooree ak bi nga kóor wuri ñooyam dëgg la hmm. war ngaa uh, teel koo fànnoo mu yéene ji te bëccëg bépp lu koy dog waroo ko ko def muy siyaamu naa la ko fari dataani jooju sëñ bi war nga ko fokk fonk bu baax a baax a baax di teel a dog di yeex xëdd ak fekk sa làmmiñ yi ba doo ci wax wax ñaaw ci bëccëg bépp ñetti yooyu boo ko defee sunna ñetti sunna yi koor yi matal nga ko bu ko defee nag yaraw na afdala futoorin fil xubur bala ngaa dem ki ki woor te defe ko ni ko ware bu duggee ci bàmmeelam nga xam ne wa min waraihim barzaxun ilaa yawmi yub'asuun diggante boobu ngay nekk sa bàmmeel te bis ci taxaw gutit daañ leen fa indil ndogu yoo xam ne ñi daa woor rek ñoo koy mën a am kon yàlla na ko yàlla dimbali kon koor lu mat a fonk la lu mat a ma la ci bëccëg bi lu mat a fonk la ci di ko dundal ci guddi gi lu mat a def lu baax la eh, maanaam di ci def ngir yàlla infaq loo ci defee rek loo xam ne nit jariñoo na ko ba woore ko rek am eh, dana la amal njariñ tey ak ëllëg moo xam da ci jox nit suukar moo xam da nga jox nit lu mu mën a doon rek mm-hmm. loo xam ne nit woor na mu ne mu dog mu dogee ko mm-hmm. kooku tiyaabu ju réerée ndax ku dogal ku woor gis nga li ci yonent bi wax wa man fattara man gis nga li ko yonent bi tudd bari na lool mm-hmm. kon yàlla nu yàlla dimbale ba noonu ko sëñ bi diglee ba def ci ab xasida goo xam ne nee na mboolem ñi nga xam ne dañuy woor it bu ëllëgee duñ mar te it àjjana am na bunt boo xam ne rayyaan la tudd ñaar rek a fay tàbbi mooy kuy woor ak kuy bigal gone ndax bu dee ci addis bi dane fenn te te sëñ Tuubaa sax ma ko wax man ma ma dégg ko ci mag ñi laa yadxulu fii illaa mufarrihu sibyaan muy benn bi benn bi nag mooy eh, mooy bi mu wax mooy addis bi ma xam ne ci la waxee ne kenn du ci tàbbi kurut kuy woor mm-hmm. kon yonent bi dana wax ne ñaar ñaar yëpp rayaan waaw rayaan moom ab bunt la boo xam ne kuy bégal gone boo sëñ bi nee na sëñ bi doon joxe dara sëñ Ibra Faati ne ko a ah, ta bàyyil ma ma bëgg koo jël ci loxoom man koo séddale fekk sëñ bi di ko joxe gone sëñ bi ne ko inna fil jannati baaban yuqaalu rayyaan laa yadxulu fihi illaa mufarrihu sibyaan oh, oh, oh. loolu sëñ bi laa ko toxaleen bu yàgg <laughs> <laughs> kon nag kon nag yàlla nu yàlla dimbali. amiin ngeen ngeen ngeen jàppee ko noonu. gën koo fonk. gën koo dundal tayit boo agsee ci fukki fan yi mujj nag moo ci ëpp doole. waaw ndax ci la doole ji gën a ñëw ndax yonent bi masaa ñëw da yee waa këram takkaat ndiggam di ko gën a dundal di dundal guddi gi di dundal bëccëg moo tax mu ixtikaaf di mu daa def sax moo tax mu mu dadaa ànd ak waa këram ñëpp soxnaam yëpp ñu maanaam maase dugg ci jàkka ji tëj seen bopp. ba fukki fan yi bañ ne tey di weer weeru feeñ na ñu soog génn ngir bëgg rek mën a jéemaat ci yàlla gën a mën a dàkkit laylatul xadar euh, guddi gu jot rek nga nga nga jàpp ne tey jii mën naa cee daje nga moom xaay sa tuuti laaj yonent bi ne ko bu maanaam bu ma xamoon ne tey la ñaan gu ma war a wax mu ne ko allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni mm-hmm. yàlla di ab jéggalaa kon nga bu bëgg njéggal jéggal ma ñaan googu mooy gi ne boo jortee ne tey fukki fan yu mujj yëpp rek nga di ko faral di wax allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni bu ko dee nag naafile yi eh, taxaw guddi lu mat a fonk la ci ci ci weeru koor ndax moom yàlla da ko bëgg rek ndax bu ko gis nga ni ko sëñ bi wax ci masaalik sax xarimtu an axawma fi layaali xamsat asrin ala tawaali gis nga kook nga xam ne sax am amoon na juróomi weer yoo xam ne mën a tuta la te li ko tegoon mooy gis nit rek muy jaamu yàlla mu ne mu wax ci xelam ne kii daal boo day njistal yàlla nattoo ko ca moom nitu yàlla kooku nga xam ne nee na nee na lool naafi la guddi waaye ma gis ki kuy jaamu yàlla rek ma wax ci saam xel waxuma ko kenn sax ne kii daal damaa kan day googee rek yàlla nattoo ma ci maam juróom weer mënatuma naafila sëñ bi nag nee na loolu la koy moom xaasa li anna sarra eh, mun mu waxaate li anna na nee na li ko waral mooy wu aw ay day eh, ay wu tuuti day woote jëm ci ay wu mag xalilun kullin minhuma yadhu ila kathirihi fala takun muqallila nee na lu tuuti lu baax dalay woo jëmele ci lu baax moo tax bul xeeb lu baax mm-hmm. waaye lu tuuti lu bon dalay woo jëmele ci lu yaatu ci lu bon moo tax bul xeeb lu bon ba def ko <laughs> xalilu kullin minhuma yetoo ila kasiirihi falaa takun muqallila mm-hmm. kon nag yàlla na nu yàlla dimbale te ñu gën a farlu baax a baax a baax gën a ne suufus Tuubaa ak boqatul mubaarakat bee ci njaaram di lépp luñ man sëñ bi nee na bu weeru kooree ci lañ koy gën a man ci la seen doole di gën a bari waaw suufus tubaas ak suuf si njaaram jee mu dëkkoon waaw loolu ku wax kee ko wax te maa ko <laughs> kon nag kon nag yàlla nu yàlla boole dimbale loolu doy na yom leen foofu tey maa ngi ñuy fasaale ñi toog ci jataay bi di fasaale ñi ñuy déglu ñëpp ñi ne ci biir réew mi ak ñi ci bitim réew ak mboolem jullit ñëpp nag di ñaanal jullit ñëpp di ñaanal taalibi yëpp di ñaanal fu nitu lislaam ne di la ndokkeel ci weer wi nga xam ne ñoo ko bokk te moo ñu boole ñun jullit ñëpp ñuy dogandoo di woorandoo ci wenn weer mu tegtale ne ñun jullit aw wenn xeet lañ woo xam ne am nañ benn yonent bu ñu boole te benn yonent boobu war nañ cee sant yàlla ndax bi bi yàlla fabee ki gën ci mbindeef yi def ko mu mu jiite suñ xeet wi boobee lañ gën ci xeet yi ñu nit na noonu ko bësër yi waxee lama naha llaahu daahina li taahatihi bi akrami rusli fa saasa ñu nit kun naa akramal umami <laughs> bi yàlla wooyee ki nga xam ne moo moo ñu woo jëm ci topp yàlla mu yónente bi ne ko yow yaa gën a tedd ci ñi ma yónni boobee ñun ñiit fa saasa lañ nekk di xeet wi gën a tedd ci tedd ci xeet yi moo tax yàlla tagg tagg jullit ni leen kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi lu tax taamuroona bil mahrufi wa tanhawna anil munkari wa tuminuuna billahi kon nag wa kullu aamin wa antum bi xayrin wa salaam mooy lool li muy firi mooy yéen a gën ci xeet yi te alxuraan ko waaye nag li leen ko li leen ko may nag loolu ponk boobu ñu ne yàlla nañ ci góorgóorlu ba waxtu wane di ko sàmm mooy nañuy digal nit ñi lu baax maanaam li fi ko yàlla tënk feeg juguñu fi rek fii juguñ fa rek gën a tedd ci xeet woo day yokk mooy mooy di dégle lu baax di tere lu bon fokk ñii kilifa diine waxtu ne war nañoo dëkk ci di ko def taamuruuna bil ma'ruufi wa tanhawna anil munkari ndax kat yéexoo di kat bari lu leen dar loo xam ne alxuraan xaw na kaanoo mun yatanaaxawna an munkarin fa'aluu labiisa maa kaanoo yaf'aluun <laughs> li leen dal kat li dañ daawut tere ab safaan buñ ko gisee moo tax li leen dal baaxut mooy la bi sama <laughs> kon nag kullu aamin wa antum bi xeyrin yàlla nu yàlla defal atum jàmm neex yoo xam ne buñ jógee ci koor gi danañ bokk ci ñi nga xam ne koor gi jëriñ na leen ndax mooy xolub at mi koor bi bu nee rek lépp yéen yonent bi dafa tabe woon waaye bu koor masaa ñëw mooy gën a tawe ngelaw ngelaw loolu la loolu la addis yi mooy gën a ngelaw luñ boyal ci yërënt bi ci bu koor masaa ji ci lay gën a ci weer yëpp sëriñ bi bu masaa koor masaa jot maam Aminata Bousso dafa nettali ne bu koor jubee loo loo loo ko wax mu ne xanaa sama gan gi nga koy waajale loo ko wax mu nangu di kàddu yi fàttalee nga tàmbalee ci kàddu gu njëkk gi sëñ Fallou li mu waxee ne sëñ Abdou Lahad nit moom boo ko xasee xam moo fàttee joo mokkal ñooyam buñ ca yokkee aw sadda nga xam ko buñ ko ca wàññee nga xam ne wàññi nañ ko ci kon loolu xam-xam la bu leer nañ eh, beneen bi ci toppitam itam eh, ñëwaat na ci eh, ci njàngaleem Serigne Touba li mu wax ne sëñ Abdou Khadir moo wax ne jaamu yàlla baaxee na fépp waaye Touba la gën a sakkane te nee na ñun lu sakkan la ñuy wut xanaa ne kuy jaayit tono wu ngay bëgg wala lu gën a sakkan ah. bénéfice bu sakkan ah. moom ngay wut muy taxawaay yu am solo ñu lay seereel yitte ak pas-pasu sëñ Talla Gueye mm. Eh, waxtaan wi bokk na ci ñi nga xam ne ci ñi koy njëkk a soññee ci weer wi lay bokk. Ah, waaw ba muy nekk soow di ko topp ba ni mu koy fekk si fii. Ah. Eh, ñii ñu àndalit di sëñ Xaadim Seck eh, sëñ Mortala Fall sëñ Alaaji Fàllu la ak sëriñ Cheikh Gueye at mu ñoo ñoom ñoo koy ànd ñëw di ko taxawee. xam naa sëñ Fàllu mi dina ci doy seede ndax ba ñuy nekk Italie bokk na ci màggal yi nga xamante ne su amee muy màggal sëñ Abdou Khader ak màggal sëñ masamba sëñ Cheikhoum sëñ Modou Faty Khary ko def ak yow si màggal sëñ Abdou Khader bokk na ci màggal yi nga xam ne nit ñi buñ ñëwee di déglu kenn du leen wax déglu leen buñ ñëwee màggal si kenn du soññ kenn ci déglul ñëpp dañuy ñëw fas yéene déglu waaw ndax la muy wax day nekk luy am njariñ ak sëñ sëñ sëñ euh, Isaaxa moom sëñ Basiiru moom tamit xam naa sëñ sëñ sëñ Fàllu dina ci doy seede ndax fekk na ko ba tàyyi léegi nag dafa am loo xam ne dama ko déggoon ci ay jamono euh, te kon ñun dañuy liggéey ci média ñu soxla de mu yeesaat muy jamono boo xam ne da doon wax ci wàllum tarjumaan ji nekk ci Matlabul Fawzayni eh, ci di ci was ta digganteeg waxtaan ak Sëñ Saaliwu eh, li nga xamante ne njariñ la ca ba nga koy wax booba eh, pétrole kenn tuddagu ko Sénégal nga wax ci wax joo xamante ne ñu bañ ko déggee fekk na suñu pas-pas ñu gëm ne lu raw jamaak yooyu yëpp am na fi ndax ni ko sëñ bi doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la am ca Màkka ak Medina nga ñëw leeralaat ko ñu teg ci ay ay ay at yu néew rek ñu daal di wax fépp ci si Sénégal am na gaz am na pétrole waaye nag li ñu am dafa ëpp loolu muy sëriñ bi ñu bëggoon boo ñu mën a yeesalaatal loolu rek ci ñaari kàddu yu gàtt ca sa digganteeg sëñ bi ci tarjumaan waaw góor sëñ Xaadim ndax euh, fii moom walis yu bari dañ koo tëj <laughs> waaye léeg-léeg nga fexe ba ñu ubbi wenn walis rek dana dana ciy baax Euh, damay faral di wax toujours ne ba mu koy ñor néew ma ñorutoon nit ñi waaye seen yitte jëmagu ci woon te mag ñi nekkoon ak sëriñ bi moom ala kulli xaalin eh, moom dañ doon dem ku dellutoon lan yor nag buñ demee dañ koy ñàkk waaye alhamdulilah rabil alamin ba nga xam ne fardu kifaaya la ko jàppe woon ci wuutu ñëpp ba taataan li woon ci mag ñi kon ñu ñëwaat rek ci noonu mu waxoon ci tarjumaani matlabul ni waxtaan woo ci doon def ak sëriñ Saliou noonu la ko waxee sëñ Abdoulaye waaw. loolu képp moom mooy nanu ngi mi ngi ci bànd yi xanaa loolu ma ci waxoon rek wa way way loolu mu wax ci loolu sëñ Ibrahima Sidna Ibrahima ñaan ñaan ko fii ñaan ko ca Makka ba mu doxaat ay junni at ak nangam ña ba jege ñaari junni at ak nangam ëpp na ko sax mu soog a nangu nag pétrole beeg yëpp feeñ fa mooy bi waay din xëy si seen hindi baytikal muharram rabbana li yuqimu salaat faj'al afidatan min naas tahwi ilayhim warzuqhum mina samaraat la'allahum yashkurun mooy ñaan yooyu mu fa doon ñaan moom it sëñ bi bi muy def mbaarum mbaarum ngeer mi fii mbaarum ngeer la fi njëkk def foofa la toog def Matlabul Fawzayni ci dimb googu ñuy wax di jóge ci mbaarum ngeer mi ci di di ñëw foofu <laughs> fi la taalife ñaan fi nag loolu ci la nag boobee nag la sëñ bi xam ne wér na ko ne boobu nag la ma nettali ne ma li nga gis ci réew moom yi yëpp muy pétrole ba ak gaz ba ak xéwal yooyu dana ñëw fi ndax sëñ bi ñaan na ko. moo waxoon loolu ma ne li woon ko nag waaw boo xam nga ñun xamaguñ ne pétrole sax jege jegegun ne eh, ci Sénégal nii tey nag am na sax leen lu mu ci daal di la wax ne eh, boo ma ne am na lu ma ci seetluwaat wa kassir an xayraati haasal baladi wa risqahu ba noppi nag wal takfihi han naka di bi mu ñaanee wërsëgoo nañu la yëpp ñëw ba noppi nag daan ñaan ne te bu mu ànd ko tiis loolu la ñu bari seetluñ ko. macha allah. kon kon suñu xel war naa dal. loolu sax Mbacke Balla. bisimilah kon ndax wal teg fii xam na kat yi. fu bari moo ko yàq. wallahi bu ci amut bu ci amut waaw. ah day kon kon eh, ñu tàllal ñëpp. ñëpp ñu tàllal nangu ñaan. te ñaanal ko moom it yàlla gën a guddal fanam. te wéeral ay cëram. te nangul ko ab liggéeyam. ci barkeb Sëriñ Tuubaa. amiin amiin